Sénégal euh, ñu ngi ci crise euh, politique ubbeeku le 3 février nous avons fi suñu point de presse wax un coup d'état constitutionnel le président Macky Sall tambalé. woon ñu wax nag ni ñun dañ ci taxaw réussir danañ ci mobiliser wu danañ ko attaquer en justice mooy décret bu mu le 3 février ne day Le décret de annulé. Il y a une convocation du corps électoral dans le mois 25 février. Il y a Sénégalais, citoyens électeurs, qui ont voté le 25 février. Le décret l'a annulé. Alors, le 15 février. 15 février 2024, c'est le jour où nous une histoire politique du Sénégal. le Conseil constitutionnel, ñaari dogal benn bi mu ne décret boobu ma doon wax sànq ne ne décret boobu c'est illégal amul benn base légale donc annulé na ko kon Macky Sall la mu waxoon ne dafa annulé convocation corps électoral bi génnee nañu lool kon nag corps électoral bi ñu ngi ko doon effectivement continuer di ko woo le 25 février 2024 loolu la fi ñaareel bi. mooy ne conseil constitutionnel nee na recours bu député yi assemblée nationale ñaari recours la sa mais en tout cas ñaari recours yooyu député yi signé ko man bokk naa ci ñu signé benn recours yi ak député Yewwi Askan Wi Pastef yi recours boobu dafa ne conseil constitutionnel proposition de loi bu ñu voté assemblée nationale le 5 février gis ngeen ko ba gendarme ñëwé ñëwee gañi député ñu mëna a voté proposition de loi bobu méngoowul la constitution Sénégal muy lu du lu ndaw parce que proposition de loi pour vous, ngi leen di dafa né dafa bëggoon modifier article 31 bu constitution bi ne benn des dàq élection 25 février 2024 ñu 15 décembre 2024 Nous bi mu ci donc fukki que président Macky Sall reste président de la République avec toutes les fonctions Dans cas, Moyen d'avoir prolongé prolonger mandat de 10 mois de fukki Lors de la proposition boobu dans wax député yi pour ko ci assemblée nationale recours cours, la ñu def devant le conseil constitutionnel conseil constitutionnel train en ci faire en tout ëllëg méngoowul ak suñuy constitution ndaxte constitution bi dafa ne mandat président de la république du Sénégal ñaari mandat la mën a doon ñaari mandat de 5 ans loolu le conseil constitutionnel wax dëgëral ko muy lu histoire politique du Sénégal muy lu rëy démocratie du Sénégal muy lu rëy ci taxawaayu Sénégal ci mbirum démocratie parce que Sénégal la mu am nee naa suñu nekkee or nañu wut am na ñu ëpp or fii ci sous-région muy Guinée wala Ghana wala ñeneen suñuy wax pétrole ak gaz am na ñu ko jëkk am mais ñun lu ñu am war ko téye suñu ñaari loxo mooy suñu modèle démocratique modèle démocratique boo xam ñu ngi ko fi dawal ñu am suñuy alternance l'an 2000 2012 modèle bobu pour mu jëm kanam réforme bi bu may wax sànq président de la république ñaari mandat le mën am deux mandats de cinq ans lolu lu rëy la xex nañ ko depuis très longtemps conseil constitutionnel légui consacré n'ako, japp nañ ni légui légui régler nañu problème bobu définitivement té su boba pays Afrique de l'Ouest ñuy xool yépp dinañ xamné yoon bii nañu jël motax ma wax né le 15 février c'est un jour historique, histoire politique du Sénégal. C'est un jour historique pour notre démocratie. C'est war nañ historique pour le conseil constitutionnel les juges du conseil constitutionnel ont été éclairés Je laa mën a wax leeral mbir boobu taxaw ci taxawaay boobu loolu nag que am ñaareel bi est président Macky Sall ci nee mom and na ak décision conseil constitutionnel té loolu mo wara am ñu ngi ci état de droit mu ñu ñu wax ñun ñu ngi ci état de droit ñu bind suñu constitution 2016 té man anduma ci woon sax ndax woteewu mais nangu nako parce que majorité bi loolu la wax né conseil constitutionnel am dogal yo xamné mom moko wara def surtout lu jëm ci élection te su dogalé kenn du ci teg baat tout dogalee ken du dit teg bat article 92 de la constitution Quand on a ndeyu mil bi conseil constitutionnel su y ba paré ñoom ñu ci tek bat On xam lu ñu bëgg ou on est dans un état de droit ou on est dans un état ku mu neex lu la neex wax mënta continuer nañu japp suñu état de droit quelles que soient les difficultés waxuma né amul difficulté am na ay insuffisance am na ay manquement mais alors les corrige. donc le 15 février c'est à marquer dans l'histoire du Sénégal Et le conseil constitutionnel il yemul foofu dafa le 25 février vie, élection mentale, constaté na les autorités compétentes donc président de la République administration dans les meilleurs délais na organiser élection di le 2 avril da war un président qui a ne des de service le président Macky parce que mënta am plus de deux mandats ci biir loolu négocié, nañu ci le 15 février 2024 4 heures dans l'après-midi

nee ñu foog ma wax leen lan laa wax ak président de la république dana doy waar man Daniel Kabou bokk nit ci ñu ma formé ñaar yëf laa jàng jàng ci moom ay homme d'état la ñu xam nañu état mu ne ma Mamadou Lamine sooy commencé liggéey sa bureau pour l'état dangay ngay fàttali da ngay fàttaliku sénégalais

bu ci gën a màgg muy président de la république loo waxanteeg moom seen biir lay des sauf su la joxe autorisation nga wax mooy ñaareelu leçon bu ma fa jógee nag yëgal naa Sénégalais yi yëgal naa diaspora ak àddina bi ne opposant de Macky Sall très clair depuis longtemps opposant parce que daf ma opposant parce que dama ko de un problème ak mom mais damay faral di wax ne de dafa Paris te man dama bokk avion nous, sommes moins état de droit. Nous, sommes moins démocratie. Nous, sommes un moins président de la République, nous wara est pouvoir. Nous, sommes moins nous, comme, comme, nous, continuons à nous, nous, avons une a usine, khalé, bigé. Depuis 2007, nous avons politique, nous avons politique, nous avons politique. Mon dernier ñuy wax ne Mamadou Lamine c'est l'homme aux cinq C constant cohérent crédible compétent et vous pouvez avoir confiance on le le président Macky Sall waxtaan nañu ci mbir mu crise bi c'est normal parce que loolu moo ñu fi andi woon nous nañu tamit te lu am solo muy géopolitique moy affaireu karangé kaaraange nous sous région bi waxtaan nañ parce que xamna né luma lu ma ñor la xam ci expérience xamna né m'a maa doon directeur de cabinet Alpha Omar Konaré Addis Abeba ah buñ ñu doon affaire Darfour yeeg débarquement Union africaine ak Darfour yeeg ma ngi won ci biir mais lu wóor ba wóor ñu wax ko di ko répété moy Sénégal la mu am moy son modèle démocratique modèle bon. dafa président de la république ñaari mandat de 5 ans président Macky Sall de mandat de 5 ans mi ngi le 2 avril 2024 Lolu moy deug té lolu moy am Inshallah. lu ci des nak élection dire diir boo xam mi ngi gëna gatt moy équation bu ñu tek ci table bi am na ñu sét ci wa aar suñu élection ñu don manifester ak ñom samedi ba passé ñew nañ fi waxtaan nañ ak ñun ñeen ñi seen gis-gis ñu bari and nañ ci expert yu bari ñeneen jàpp nañu élection et le 3 mars le mën n'est bu su le 3 mars ak yenn délai yi suñ ko kon avant le 2 avril

exemple yu ñuy Sénégal, il y Sénégal yenn candidat, yi yenn experts yi yenn professeurs d'université yi ñëpp xam nañ ne ci biir loolu foog nga xosi code électoral foog nga laal peut-être ci constitution loolu mooy wax ci ñun ñu jàpp ñun waa coalition MLD Tekki 2024 le que conseil constitutionnel moom kese mooy kuréel boo xam ne am na sañ-sañ dogal ci mbirim élection te ken warutee te pat kon nag mom mo wara valider datu élection su ko defee su boobaa président de la république su jëlee décret kon ken du ci teg baat parce que mu ngi sukkandiku ci le conseil constitutionnel loolu moy suñu position wax nañ ko ñu koy répéter waat loolu moy solution bi moom mooy yoon bi ah, mbokki Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois war nañoo santaat conseil constitutionnel parce que nañe na leen parce que attaqué nañ leen loolu moo waral situation bi ñëpp xam nañ ko mais lu ma doon wax sànq mooy quels que soit les manquements lu nit mën a wax parce doomu aadama doomu aadama institution yi ñu ngi leen di tabax conseil constitutionnel moo fi nekk on va pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain dañu téye suñu conseil constitutionnel sox ak mom. ba mu génnee dogalam amna ay borom xam-xam Sénégal wala yore sen bëgg-bëgg rek nee nañu léegi liste bi liste des 20 candidats yo xamné conseil constitutionnel arrêté nako ko nañu liste bobu valable tout parce que liste bobu dafa valable woon pour élection 25 février comme 25 février mënuñoo am élection kon nag liste boobu dañ koy daaneel dañu war a wutiwaat beneen liste Amna ñu koy wax amna ay organisation yu koy wax amna ay parti politique yu koy wax mais yaakaar naa ne daanu nañu té tey conseil constitutionnel génnewaat na beneen liste liste bobu 19 ou fukk vous juróom à professeur Rose Wardini professeur Rose Rose est nee dafa am nationalité française La loi Sénégal constitution dafa né président de la République on nek candidat

la nouvelle liste une nag Nous doon wax liste amul Nous nous wax un candidat retenu amul daanu nous avons nañu nañu nous wax Nous élection